subhanahu wa taala ci tàmbali bind bi
dafay joxe ay misaal ci alquran alquran nag mbokk yi borom bi daf koo def mu nekk kéemtaan gi gën a màgg muy almujizatul xaalida kéemtaan gi gën a màgg boo xam ni borom bi subhanahu wa taala jox na ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñun bu fekkonte ni borom bi defal nañu tawfiqi xam dëgg-dëgg alquran li mu ëmb ci ay kéemaan duñu doyal ci téere bi Ousmane ibn Affan doon na wax ni law tahurat qulubuna ma shabiat min kitaabi rabbina allahu akbar suñu xol yi ci boppam moo feebar waaye su nekkoon xol yi feebarul dañoo wér ñu laab mu ni comme duñ mës a suur ci waxi yàlla subhanahu wa taala xam nga nit moom buy lekk te suurut moom day tibb rek di dugal rek day tibb rek di dugal rek parce que suurut kon suñu borom subhanahu wa taala def ni ki nga xamante nii moom yàlla dafa def xolam mu nekk xol bu laab di mën a jariñ ci alquran kooku moom du suur ci téere bi maanaam bis bu nekk saa bu koy jàng rek day gën a bees ci moom bindab tey bi dafay joxe ab misaal alquran nag dafa fees ak ay njàngale yu wuute benn bi day nekk ay ahkaam bi ci des nekk ay waad bi ci nekk nekk ay waayid bi ci des nekk ay qisas bi ci nekk nekk ay amthal ah ila axiri misaalu dafa nekk jàngalin jàngalin façon jàngalin wu am solo woo xam ni dafay gaaw ci egg ci xelum doomu aadama am na benn borom xam-xam bu mag dani summiya al misaalu misaalan ah li annahu yumaathilu al aqla misaal dañ ko tuddee misaal parce que dafay dikk pour jéem a tolloo see xel mi mbokk yi xool ngeen yàlla subhanahu wa taala ni mu màggee na ngeen baal ñu ci kàddu gi tey dafa xaw a dëgër dafa xaw a diis boog ndax sot borom bi subhanahu wa taala ni mu kaweeg ni mu màggee su fekkoon ci ni noonu la waxee ak ñun alxuraan duñ ko jàng di ko jëriñoo déedéet mu doon suñu borom na mu màggee moom buy wax moom te noonu lay waxee kon alquran ñun du jëluñ ñu koy jàng parce que duñ ko jariñoo waaye borom bi sax daf koo wàcce wàcce ba misaal yi yumaathilu uqulana muy mën a tolloog suñuy xel loolu moo tax ñuy jàng alquran li ngay jàng di mën a dugg sa biir xol di jonjonteeg sa deret ba nga am looy yëpp alquran nag borom bi daf koo def ay misaal daf ci def ay misaal yu baree bari xoolal misaal mi njëkk ak misaal mu mujj rek boo ko jëlee dafay daal di tënk li ma bëgg a wax nga xam ngeen ni misaal yi dafa am am si la yoo xamante ni sarixatan dafa dikk leer nekk baatam misaal sax la ñu jëfandikoo am am si la yoo xamante ni maanaam jëfandikoo baatub misaal waaye dañuy jegele pour nga mën a comprendre am misaal yoo xamante ni dañ lay tànnloo pour nga def ab taxaw seetlu ci lii ngay romb yow moo tax boo dikkee ci alquran bi mu tàmbalee doxut ñaari jéego rek lu dul dafa wax ni masaluhum ka masali lazi stawqada naara te borom bi bu joxe misaal nit ki dañ koy jox misaal mu tolloog la muy dund ndax xam ngeen ni kenn du fekk waajoo xamante ni ma nga ca kaw ga te loolu wallahi mbokk yi ci kéemaani alquran yi la bokk waajo ca kaw ga nga xamante ni moom oto sax xamu ko faf wala nga dikk naa ko avion moo fa duggee gis nga misaal yooyu moom du gaaw a yegg si même yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay jàngaleem da ngay gis ni fajar lu muy wax al fajru fajraan ah fajar ñaari fajar la am na fajar guy kàcc ak fajar guy wax dëgg fajar guy kàcc boo ko séenee comme génn ab till ci kaw asamaan si boo dikkoon ba ca digg taaxee na leen génn ab till dañoo xam luy loolu gis nga ak yeneen i misaal yoo xamante ni yooye da nga cay déggee ni kon nit ki dañ koy jox misaal mu tolloo xelam beneen bi ci des ci kéemaani alquran yi ba léegi mooy alquran yépp la fi nekkal gis nga alquran catégorie boo bokk ci nit ñi rek boo dikkee da nga ciy gis sa bopp moo tax am si la yi ñuy joxe léeg-léeg dañuy dem ba ca biir géej ga joxe ko fa ngir nappkat bi mu gis ci boppam xam nga nit gis nga nit buy buy déglu ba mu yàgg même rajo sax li ñuy wax yow intéressé wu la waaye xaw naa laal sa wàll rek da ngay daal bàyyi li nga doon def ngay déglu mu mel ne benn baykat bu nekkoon ca taatu garab ngay bayam yàgg rek mu dégg ñuy wax ci mbirum jiw gerte gi te moom mi ngi magasin yi gerte gis nga lu mu jàpp même bu fekkente ni dëkk ba ne ca ginnaaw Casamance dañuy waxtaane moom mu dëkk dëkk fii sax day déglu ndax nit day bëgg koy wax ay waxam moo tax borom bi subhanahu wa taala catégorie nit nit ku nekk daf la cay jox sa wàll wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduun moo lii ne ah bii de ñun ñoo ko moom mathaluhum ka mathali alladi istawqada naara parce que ñoom lépp daanaka fekk yàpp taal safara même taal safara bu dul woon ak lekk yàpp sax dañ koy taal ngir gan guy gindeeku rek mu xam ni fii kat ab dëkk la ndax sawara da daan gindiwaati moo tax mu ni nahnu jaalnaha tazkira wa mataan lil muqwin parce que yóbbalu tukkikat la fa sabbih bismi rabbika al azim ak ba mu jeex léegi boo dikkee ba ci misaal ba mujj daraba allahu mathalan alladina kafaru imraata nuuxin wa imraata luut gis nga bu ko defee jigéen ñi daal ah boobu de ñun ñoo ko moom ku toll ni ab yonent ci mbaaxaay ci ragal yàlla nga xam ne lu ko jege dafa war a mën a sell suñu borom nattoo ko soxna su dëngee nii góor gi mu ne ah kon de góor soxna suñu borom nattoo ko soxna su demeewut noona loolu waru koo mën a joom jigéen ji ni mu ni ah ñaari jigéen di ay soxna yonent te nekk seen soxna yonent mënta tax ñu baax kon ndekete mbir mi nekkut mbirum yóbbaale ma waaye mbirum góorgóorlu la sa jëkkër góorgóorlu yowe moo tax yonent bi di wax ci saxiix muslim man batia bihi amaluhu lam yulxaq bihi nasabu ku sàggan ba say jëf tax laa tardé saw askan du la tax a dabe ak a am solo misaal mu am solo ngoog moo xam ni mbooleem géew yi ñuy waxalee diine këri diine dañ ko faa waroon di wax man batia bihi amalu lam yulxaq bihi nasabu ku sàggan ba say jëf tax laa tardé saw askan mënta tax mukk nga dab mbooloon ak noo mën a sant nag kon yu mel noonu dafay yeewaat xel yi moo tax borom bi subhana taala kon bu ngeen seetloo noonu la tëggee téere bi noonu la tëggee tamit bindab tay bii nga xam ne misaal la ciy joxe suñu borom mu ni wadrib lahum saddal leen matalan ab misaal mooy comme daraba allahu matalan ak wa yadribu allahu al amthal moo tax mbokk yi alquran ku ko jàng rawatina misaal yii nga jàng te comprendre war ngaa tiit amri ibni murra nee na saa su ma rombee aaya buy misaal ci alquran ma romb jàll romb jàll comprendre ma damay sëgg ma jooy mu ni lu tax muy jooy mu ni sunu borom ni wa tilka al amthaalu nadribuha linnaas wa ma yaqiluha illa al aalimun misaal yi nit ñee tax ma di ko sant waaye nag ñi am saasu xam te xellu rek ñoo ciy jëriñu kon bu fekkee jëriñu rek da ngaa war a tiit ñi amoo saasu xellu amoo saasu nar a xam yal na yàlla musal loolu kon mu ni wadrib lahum saddal leen matalan ab misaal rajulayni ñaari gaaya ngi ñii yoo xam ni jaal naa dañoo def li ahadihima ñeel kenn ki jannatayni ñaari jardin ñaari tool jannatay ni ñaari jardin yoo xam ni min a'naabin ci raisin la sunu borom mu ni wa xafafnaahuma ñu wërale ko bi naxlin ci ay taati tàndarma ñaari gaay a ngi nii kenn ki ab julit la bu gëm yàlla te wéetal ko kenn ki ab yéefar la mu bon te saay-saay xanaa ni xel doon jàpp mooy ki gëm yàlla te nangul ko kooku la sunu borom war a jox ñaari tool yi sunu borom ni déedéet ci weddi yàlla te nekkub saay saay lan ko jox te loolu nag wa kadalika def defu sa borom subhanahu wa taala moom day faral di defee noonu nag ndax léeg-léeg mbir yi ni ñu koy àttee moom day njuuy day njuuy maanaam nit ki day yaakaar ne nii la sunu borom njuuy ko defee ko neneen ñaari gaa yi ngi yoo xam ne kii dafa gëm yàlla kii weddi yàlla suñu borom ni ñu jël ci gëm yàlla bàyyi ko defaluñ ko lii waaye jël yéefar bi defal ko jannatayni ñaari jardin min a'naabin ci ay raisin wa xafafnaahuma ñu wërale tool bi naxlin ci ay datti tàndarma wa ja'alnaa ñu def baynahuma ci diggante datti tàndarma yeeg raisin yi suñu borom ni zaraan am mbay kon de tool baa ngi bëgg a sakkan raisin ak jamono jooju ni mu ni mu riche ak ni mu seeree suñu borom may la ci ñaari tool tàndarma ak ni mu riche ak ni mu seeree suñu borom wëraleel la ko tool bi espace yi des ku si néew suñu borom daal di fay jëmbatal bàyyi yeneen garab sax fa kon tool baa ngi bëgg a am valeur sunu borom mu ni kiltal jannatayn benn bu ci nekk ci ñaari tool yi aatat andi na wala day andi ukulaha meññentam ba mu mat sëkk at mu jot te day dublewu buy meññi maanaam su waroon a meññi fukk day meññi ñaar fukk walam tazlim minhu shay'an te tool bi tooñu dara tool bu tooñ mooy tool bu ñu defar roose ko ba pare meññi jot te meññu sunu borom mu ni tool bi moom tooñu walam tazlim minhu shay'an tool bi tooñu dara sunu borom ne yemu ci loolu di wa fajjar naa ñu xutti xilaalahuma ci diggante yi naharan ay sawle xotti mooy jaarale ay yoon maanaam am na ay yoon yoo xam ni bu dee ci àll ba da léegi mu nekk mbalka moo xaw a gën a jege taax léeg mu nekk sayaan roosekat yi xam nan ko léeg mu nekk teen léeg mu nekk déeg léeg mu nekk xur bu ci nekk rek am ndox jaar fa sunu borom mu mel ni dafa ni baykat yi àll bii di def di wut ay tiwo yu jaar ay raakoor yu jaar ci diggante gàncax gi def ay tiwo yu sones yuy sotti ndox suñu borom noonu la ko defal tool bi mooy faj jar naa ñu xutti xilaalahuma ci seen diggante yi wala xilaala suñu borom subhanahu wa taala mu ne ñu xotti ci seeni diggante ah li nga xamante nii moom mooy ay sewne ko faj jar naa xilaalahuma ci diggante tool yi naharan li nga xamante ni mooy ak dex dex daal di fay jaar dex boo xam ni dafa bàyyi ay yoon yuy sotti ndox suñu borom ni wa kaana lahu fekk ñeel na ko samarun mooy am meññeent wa kaana lahu samar firi moom nag mooy mi gën a dëgër donte am na ci mufassiru ni ñoo xam boo def seen tax wa kaana lahu samar wa kaana lahu maal waaye alquran ci boppam comme ni ko al allaamatu alquraan yi di waxee xayru maa yufassaru bihi alquraanu alquraan li gën a dëgër ci lu ñuy firee alquraan mooy alquraan te siyaaqu aaya ji li mu wane mooy wa kaana lahu samar mooy tool bi daal meññ na daal ci gàttal te meññant bi même bu fekkente ni dafay tekki alal ji laa soog meññant bi alal lay jur kon mën naa tekki ñaar yëpp am na qiraa bu jàng wa kaana lahu sumru te boobu qiraa la bu wér la borom bi subhanahu wa taala mu ni ma defal ko wa kaana lahu thamar mu defal ko meññeent ah léegi comme ñoom ñaar ñoo xaritoo am xamante nañ fa qaala waa ji mu ni li saaxibihi àndandooram bi muy kim xamanteel wa huwa yuxaawiruhu fekk ñi ngi dàggente dàggente bokkut ak werante werante islam da koy tere dàggante nag dagan ndax werante du indi njariñ te dàggante du indi njariñ moo tax suñu borom dani wala tujaadilu ahla alkitaabi illa billati hiya ahsan mujaadala foofu ak muxaawara fii ñoo tolloo mooy dàggante mooy wa weccante ay baat pour njariñ mën a feeñ waaye bu dee mujaadala nag déggal bu dee bu dee werante munazaa ak yooyu alquraan da koo tere wala tanazaaw bu leen werante moo tax qad samia allahu qawla allati tujaadilu mu ngi dàgganteeg yow ay baat ndax ndaw sa dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko wax ni ko man kat sama borom kër jox naa ko ndaw gi màggat naa ci kanamam te fi mu nekk nii mi ngi nii daal dinay may wàcc ni ma su ma la na ma ci tiim yàlla naa tiim sama ndey comme ni ko nit ñi waxee muy wax ju bon ila axirihi kon fa qaala mu wax li saaxibihi ñeel waayam di wax wa yuxaawiru fekk mu ngi dàgganteeg moom ni ko ana man day aktharu minka maalan maa la ëppale alal wa aazzu maa la gën a tedd le nafaran am mbooloo maa la ëppale alal maa la gën a tedd am mbooloo nukta bu sew bi ngay bàyyi xel rek doog a jàll bu ngeen fàttali ko ci muqaddimaat yi ma defoon ci dars yi nee naa leen alquran ci boppam lu jeex rek leneen topp te da ngay defe ni kii day wax leneen fekk déedéet ñoom ñaar dañoo ma alaqa yu xam ne ma cii na xoolal yéeféer yi ak yonent bi alayhi salatu salaam lu luñ doon bëgg mooy ñun catégorie lañ bu kawe kon duñu toog ak gaayu doyadi yi kon dàqal ñii suñu borom ni ko déedéet wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadati wal ashi wax jooja jeex ñu dugg ci deneen wax joo jàpp ni bokkut ak moom waaye xoolal alaqa bi ñu am mooy kii nga xam ni mooy ab yéefar foo ko mën ci fekk rek moom catégorie ba muy xoolee mooy alal ja ak doom ya ak mbooloo ma nga xam ni moo gën a kawe walis baadoole yi di jaay la classe moo tax ndeysaan imam qatada mu ni wallahi ah mu ni tilka umniyatu lfajir lii mooy mbébétum yéefar kasratu lmaali wa izzatu nafar mu ni lii de mooy mbébétum yéefar bari alal ak diis mbooloo mooy mbooloo mu bari moo xamante ni xëy na ñooñu ay borom yi diplôme la wala ila axiri kon mu ne ko man de ana man de aktaru minka maalan maa la ëppale alal wa aazzu nafaran maa la gën a tedd am mbooloo alal ju bari nattukaay mbooloo bari nattukaay ndax alal ju bari ci alquran ci boppam borom bi taggeewu ko fa lu dul joxeel mbooloo bari moom faf moom moo gën a yées ñépp ndax daanaka boo dee xool li ëpp aktar yi muy mbooloo islam du ko faral di gërëm walakin aktar annaasi la yaalamuun walakin aktar annaasi la yaqiluun ma aktar annaasi walaw xaras bi muminin wa yuminu aktarum bi la illa hum mushrikuun aktar yi moom toujours daanaka cëm nga ciy teg rek toujours li ci ëpp ndax bu fekkee aksar yéegi ci ngëm yàlla ak mbaax waaw kay waaye aksar yéegi tax nit ñi di wax moo tax may wax te googu moom amut solo moo tax sunu borom mu ni waa ji mu ni morom mi ana aksaru minka maalan maa la ëppale alal wa aazu nafaran gën laa tedd mbooloo sunu borom mu ni wa daxala waa ji dugg jannatahu ci jardin bi ci toolam bi wa huwa fekk moom zalimun li nafsihi tooñ na boppam ndeysaan tooñ na boppam ndax yàlla saa su la joxee rek te jox jox gi juróom la ak sant rek tooñ nga waaye tooñoo sa bopp sa boroom sa bopp nga tooñ njëkk wa huwa zalimun li nafsihi fekk dafa tooñ boppam ndax xaala na ni maa azunn man di ya yaakaaruma sax programme wu man sax ni an tabili dina ma sa daay yàqu haadihi tool bi abadan ba faw tool bi jékki-jékki gooy mbaa wow mbaa yàqu loolu moom xalaatuma ko ci kaw suuf te it sax wa maa azunnu saa man sax mbirum àllaaxira ci boppam sax laa gëmatul sax faf moom allahu akbar gis ngeen mbokk yi alal ni muy mën a def nit moo tax ñun bëgg nañ alal waaye léeg-léeg alal fa muy jëmi nit baaxul de mbokk yi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni ñàkk rek a baax ci ñoom moo tax suñu borom ñàkkal leen nan kontaan ca loolu am na ci ñoo xam ni am a gën ci ñoom moo tax suñu borom jox leen nan joxe ca la leen yàlla jox gis nga suñu borom qassama rizqa ala aadali lkayfiyaati walam yansa ahada moo séddale wërsëg ci li mu gën a maandoo te fàttewut kenn te na mu defit noonu la mbokk yi suñu borom ba muy séddale wërsëg ñun kenn deful dara de xam nga su kenn jotoon def dara sax leen sax xëy na kii lañ def moo tax ñu faral ko nag ñun dañuy séddale wërsëg kenn deful dara ndax bañ koy séddale yaa ngi ci biir yaay bi boobu sax da nga nekk gu nit ku tax ñuy wax ndax bis ba ñuy sol ruux ngay doog a tàmbalee nekk nit ci la wërsëg wi ñu bind ko li suñu borom bind ci yow laa maxaala te da nga ci jot dëkkal fii dëkkal fële liggéeyal fii nan la dàq diw nay sa bàyyi diw yooyu am solo xam nga li am solo mooy suñu borom bind na ko te maa yubaddalu qawlu la day ya day ñëw moom yéen ci yàlla mee boo doon daw sa wërsëg comme ni ngay dawee dee dina la dàq comme ni la dee di dàqe dab la léeg-léeg nag li may faral di wax ne wërsëg comme ni ko wolof waxee man bañ ci tuddee ay sëg rek la ma tiital xam nga ay sëg moo di armé wër sëg te wër moom mooy lii mooy nit ki ñëw def nii wër te ku wër moom xaadoo fa nekk di wër ak a wëraat da ngay wër rek dem sa yoon moo tax li la yàlla jox xamal ni alal li ñeneen lañ woon ak am solo mbokk yi li tege ci sa loxo gis nga banque bi liggéeyu ko rek mu ñëw ci say loxo direct alal yu jaaroon feneen la doog a ñëw ci yow moo xam da nga kaa doon moo xam da nga koo liggéey moo xam dañ la koo may ila axirihi moo tax alal bi pour nga bañ a jàpp ni sax yaa ko moom suñu borom moomeel na ko joxu na ko yow wóor na leen yaa ko moom wa anfiqu mu ni mimma jaalakum mustaxlafina fii alal ji nga xam ne daa am ku dee moo tax nga jot ci xoolal xoolal allahu akbar ila balagati al quran mustaxlafina fii daa am ku dee moo tax nga doon ko gis nga poste bi daa am ko fi retraité moo tax mustaxlafina fii dañ koo doon moo tax nga mën cee jot kër gi danoo miraas kër gi ndax bàyyi ja daa dee moo tax nga mën kaa jënd mustaxlafina fii daa am ko fi jóge nga jot ci ça veut dire que kon ni nga def ba jot ci noonu nag keneen war a def ba jotaat ci kon yëfi jàmbur la gaawal rafetal doon rek moo tax alal jooju jërut jërut jërut di tiitaroo déedéet borom bi subhanahu wa taala mu ni alal ci boppam maam du nattukaay alal du nattukaay ndax nit ñi ida wabtalaahu rabbu fa akram wa naama fa yaqul rabbi akraman nit ki bu ko yàlla teralee jox ko ay bien comme ni ko nit ñi xamee ñu ne ah kii de moom yàlla da koo nar a baaxee bu fekkente ni waa ji dafa ñàkk ñu ne déedéet ki yàlla da koo nar a natt déedéet suñu borom ni kan la nattukaay bi du noonu def boobu dama peesakaay bu yàqu la bu baaxul ndax nit ndeysaan bari na alal suñu borom di ko sotti rek waaye bu xamoon la koy xaar yor pot bën potu tamaate di yàlla waa na ko koy gënal nit ñàkk na lool ndeysaan defe ne mi ngi ci metti di metti waaye bu xamoon la koy xaar allahu akbar ñàkkam googu day ñaan yàlla dee ci ànd ak loolu lépp nag bul jàpp ni nattukaay bi mooy ku yàlla jox alal mooy naroo baaxle ku yàlla xañ mooy nar ngaa baaxle tekkiwut loolu de mbir yi yonent yàlla bi ne àddina ngi yàlla di nga ko jox ku mu bëgg jox ko ku mu bëggut waaye yàlla moom ku mu bëgg rek la ko suñu borom bi jox kon nattukaay bi moom du foofu su ko defee nit ñi war a bàyyi xel ci buntu boobu moo tax doomu aadama yi seen jëmmi bopp yàlla dafa def ci ñoom bëggum alal comme ni ko bind bëri di ñëw di tàmbalee insha allah waaye borom bi subhanahu wa taala dana jël ku gëm yàlla defar àddinaam mu am alal ci kaw suuf dina jël ku gëm yàlla ñàkk loo ko mu ñàkk alal ci kaw suuf moo tax yénte mu ne addunia sijnul mu'min wa jannatul kaafir àjjana àjjana yéefar mooy àddina kasob jullit mooy àddina alxaafid ibnu xajar benn bis dafa war baax la sol ak basin ndongay topp ci ginnaawam benn yahud daal di koy gis daal ne ko yéen yéen daal yéen seen wax yonent bi moom wax jo wax wax ju ko xam ne man ñi ma ma cee jaar sax mu ne ko nag lan la mu ne ko yonent bi moo ni àjjana àjjana yéefar mooy àddina kasab julit mooy àddina te man xoolal man yéefar laa pare xoolal ma ne walaa kaana te yaa ngi nii ab borom xam-xam nga ab jullit nga yaa ngi yow fi ne mbooloo baa nga dar nga nekk borom xam-xam bu mag kon kay yow nekkatoo ci kaso alxaafid ibn xajar tontu ko tontu boo xam ni kiimtaanu suñu borom la moo lay wan ni borom xam-xam yi ñoom wallahi yàlla daf leen defal xikma alxaafid ibn xajar ni ko man en tant que jullit par rapport su ma naree dem àjjana ak la may xaar ca àjjana ak na mu neexee kon fi ne ci kaso laa nekk donte maa ngi ci kaw fas wi mu ne ko yow boo danay dem safara te da ngay dem safara boo tuubul la lay xaar ci am mbugal na mu mettee par rapport ak lii ngay dund kon fi ne lii mooy àjjana profité ci gaaw loolu loolu du génnee lu dul ci gémmiñu borom xam-xam kon ku gëm yàlla ci boppam àddina bii mooy kasoom waaye borom bi subhanahu wa taala mu ni wa daxala jannatahu waa ji dugg ci tool bi wa huwa zalimu nafsi fekk tooñ na boppam qaala mu ni ma azunnu man de fooguma an tabida hadihi abadan mooy di dina ma sa daay dina ma sa saaw jeex tey sax wa ma azunnu saata fooguma ni allaaxira sax qaimatan dina yegg si nag ay affaire allaaxira yooyu gis nga nag alal ci boppam daa bokk ci facteurs yi gën a gaaw ci weddiloo nit ci biram allaaxira xam nga lu tax mooy alal ak jigéen ñoo bokk yam seytaane da ciy lëmasu ay mbaalam la mbaal alal yonent yàlla bi na alayhi salaatu salaam man de saxaaba yi tiituma ci yéen ma bàyyi leen fi faatu ngeen nekk ay bokkaalekat ak yàlla ki yéefar déedéet xam naa ni pas-pas bi njëmbat li dëgër na caaxaan daanelu ko waaye lan lay tiit ci seen ginnaaw mu ni alal tuuru ci seen kaw ngeen di ko xëccoo ba yàqule comme ñu njëkk ñe nañ ko doon xëccoo ba yàqule allahu akbar lii moo tax keroog ba ñu ubbee al qasrul abyad xam ni moom la ñu tuddee bii tey moom maison blanche ngeen koy xawma xam ni bu kisra ba saxaaba yi di takbiir ñii di kontaan cëppi cëppi ci biir palais bi di fa julli ndax tey ñu julli fu kenn mësta julli abu darda dem ci ruqul moom sa direk di jooy jooy yu metti sax benn saxaaba laaj ko ne ko yow la ngay jooy lan la yéen yéen affaire dëddu àdduna yi mbégte la mu am fii kenn mosu fee su xoolal te maanaam gis nga nit ñi léeg-léeg wallahi yàlla dafa kéemtaane ay ay ay ay ay ay kéemaan dafa kéemaan day feeñ ci nit ñi xoolal tey fii cëpp-cëppee ko kontaan ndax li muy cëpp-cëppee ko kontaan jaru ko ahan kay ndax barab bu kenn mos ko sujootal yàlla tey ñu nodd fi li xam bi sujoot fi loolu jar na kontaan waaye kee moom bokkul ndax kee la muy xalaat muy waxu yonent bi mu ne est-ce que du lii lañu yonentu ndax ñun dañoo nar a xal ko tey loolu la doon toon moo tax ñaari nit mën nañoo nekk comme ni ko al allaama ibnu al qayyim di waxee dendee di julli ñu sëgg siggi sëgg siggi sëgg siggi ba sëlmal te fekk seeni julli ndekete soree nañ comme penk parce que dañu bokkuñu ku nekk ak la ngay yëgee ku nekk ak la ngay yëg moo tax kon alal ci boppam dafay faral di sori nit ki mbirum waajal ñàkk sax ba ay xel mbirum àllaaxira lu néew ci donte nag alal tamit am na solo nag ndax am na xeeti infaaq yoo xamante ni wax dëgg yàlla ku amul alal mënoo ko de ku yàlla wërsëgal alal yonent yàlla bi nee na ni'mal maalu saalih fi yadi rajuli saalih waaw waaye neex na lool te baax alal ju lew doom suñu borom teg ko ci loxol waa ju baax nga xam ni projet yi jëm àllaaxira yëpp tey ci jëm àjjana moom xam na ko xam ni day mel ni ñoom Usmaan ibn Affaan ñoom Abdurahmaan ibn Awf ñoom Abuubakar Siddiq ah kibaaru tujjaari saxaaba ah nga xam ni yow bu la yàlla wërsëgalee li sa xel di njëkk a dem mooy xaaral sama compte banque bi nekk àllaaxira ma vidé fa milliards yi comme ni gars yi def di yóbbu xaalis bi Suisse yow nga ko yóbbu ca ginnaaw Suisse ah rabbu Suisse wa man fiiha ah fam fa muy denc magasin yow nga dugal fa saw yiw suñu borom mu ni waa ji mu ni wala in rudittu ila rabbi te man sax bu ma delloo ci yàlla la ajidanna dinaa am xayran aw yiw minha foofa munqalaban muy delluwaay bu neex parce que xam naa ni yàlla du defar sama fii ba noppi di yàq sama fële déedéet gis nga nit ñi ni ñu nettee léeg-léeg ah yow de yàlla dalaa bëgg yàlla dalaa bëgg ci pour lan parce que nim la defal sa nga am alal nga jekk nga baax fekk loolu du nattukaay bi kon waazunu saata qaayim mooy foog na ne àllaaxira sax dana ñëw wala in rudittu ila rabbi te bu ma delloo ci yàlla sax la ajidanna xayran minha munqalaban mooy dinaa fekk aw yiw muy nekk delluwaay bu neex lu tax mooy gëm na ni yàlla du defar fii di yàqu fële suñu borom mu ni ci jeexintalu suuratu Maryam أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا اسمه فلن شف من الآية من ولئن رد إلى ربي لأجدن خ... أه؟ ولئن رد إلى ربي إن لي عنده للحسنى كمان sax suma delloo ci yàlla dina baax dina baax parce que yàlla moom ku mu bëggut la defal lii fekk loolu du nattukaay bi déedéet moo tax toujours jullit du nattee noonu ndeysaan qaala lahu mu daal di ko wax saaxibuhu àndandoor bi wa huwa yuxaawiru moom mi ngi dàgganteeg moom ni ko akafarta ndax dangaa weddi billadi ci ki nga xam ni xalaqaka moo la bind min turaabin ci suuf lan mooy wane ni mbokk mi kaafir yi waa ji kaafir yi ci aaya ji wa maa azunnu saata qaa'ima kufr la foogu ma ne àllaaxira dina ñëw kooku kufr la beneen bi ci des lan mooy wane ni dafa tooñ waaw loolu tooñ la li tax mu ne maa adun an tabida haadihi abadan mooy tooñ gi waaye la ko waral mooy dafa foog ne loolu bi quwwatihi ci kattanam la maanaam mbir yi moom moo ko jëmbat defar ko ba mel ni mel kon gis nga de moo tax borom xam-xam yi nii lañ def ba taarif aqida bu njëkk ñoom aaduma ay téere naan kitaabu waas aqida waasita aqida taxaawiya aqida safariniya aqida ahlu sunna wal jamaa aaduma ñu ko woon parce que alxuraan lañ doon génne biñ demee ba xam ne yëf yaa ngi amee njaxas ay nit a ngi judd yu bokkut ci arab yi ñu ne buñ tërëf ay xeeti xam-xam yu ñuy tuddee pas-pas yëf yi dana jaxasoo ci lañ commencé ah ndekete dangam kat kufur la aay ji mooy lan akafarta billadi xalaq lii moo tax ngay gis ñu indi taalif taalif téere yi kon akafarta dangaa weddi billadi ci ki nga xam ne xalaqaka min turabin moo la bind ci suuf summa min nutfatin mu daal lay bind ci toq mal yi ndax dangaa weddi ko kufur nga weddi mu ne ko ndax dangaa weddi yàlla mi la bind subhaanahu wa taala gis nga ki gëm yàlla ak loo am am am alal moom loolu du ko xool moom gisut loolu déedéet mënu gis loolu parce que xam nga xolam nag ci la moom kéemtaanu suñu borom la ndax xol bu xësee defaru maanaam keneen dootu fa mën a amati place wala leneen du fa mën a amati place lu dut yàlla subhaanahu wa taala lu muy bëgg yàlla mooy tax lu muy bañ yàlla mooy tax su ko defee yàlla moomu su feesee ci biir xol bi maanaam doomu aadama bi li mu yore ci ay xeeti matériel ak i addina alal ak yooyu mënu la yéeg parce que day fekk yow yéegu nga ba noppi moo tax may wax mbokk yi gis nga siiratu salaf ku koy faral di lii yow li lay yéem ci addina du yomb parce que day fekk balaa ñi indi ñu yéemu yow yéemu woon nga ba pare da ngay gis ay mbir yoo xam dëgg dëgg dëgg moo gën a yéeme yi am ci xew-xewu technologie bii nga xamante moo ko indi kon suñu borom mu ni ko waa ji mu ni ko ndax dangaa weddi suñu borom mi nga xam ne xalaqaka min turab maanaam xalaqa abaaka aadam min turaab ndax mooy sa cosaan ndeysaan suuf xoolal suuf ni mu suufee boo déggee nga am dégg-dégg mooy waa ji ni ñu koy commencé dekkeel xaat di ko wàcce ndax dangaa wet bi ki la bind ci suuf yow suuf rek lan la bind suuf loo kawe kawe kawe kawe fii rek ngay mujjaan ah ndeysaan lu muy dem mënutu bàyyi leen lu dut perkal te bu demee ci suuf si lay tëdd moom kenn du la yóbbul laal fii rek summa min nutfa ci toq ma nii léegi ñu ngi koy ñu ngi koy détaché nag léegi di ko di ko doyadal ba tax gis nga doomu aadama boo koy waar faw nga seet uslu boo xam ni du oyof ba du jël waaye du dëgër ba mu gent gis nga bu ñu yeggee ci surtout ankabut ci xisab qaaruun ay njàngale yu mokk te tegaloo ma nga fa yu am solo yoo xam ni uslub la bu ñuy waxee ak koo xam ni dafa am alal wala mu beew wala yu demee noonu ndax kat qaaruun li muy saay saay saay saay li muy bari bari alal nekk bu yéefar innama ujida ala ilmin indi gars yi dañ koy wax ak uslub boo xam ni ku yàlla namm ci yow yiw di nga deltu gannaaw wabtaqi fi ma ataaka allahu daar al axira mooy yi la yàlla jox utiliser ko pour sa alaxira baax waaye borom alal ji tamit fi mu toll bul ko ko xañ ndax kat ci misaal borom alal bi nga xamante nii moom mën naa dem mu tabax kër goo xamante nii sa waay day jar cent millions bu ko kenn du ko wax demal nga dëkk ca mbaarum ñax ma bu ko defee nag bu ko defee nag kenn du ko ci wax dara waaye wax dëgg yàlla ba fekk borom alal bi ni ko waaw sa kër gi ni ko karaw waroo ko karaw yi ah sa étage bi dafa gudd da ngaa war a gudd àddina dem sa mbaaram ñax ma islam du waxee noonu sharia du waxee noonu déedéet boo ko defee nag mu jël boo ko defee ndax doyal doylu moo mu jël waaye du waxee noonu parce que nit ki dañoo bëgg tamit li mu moom nga bañ ko koo xañ moo tax ñu ne ko wala tansa nasibaka min ad-dunya li la yàlla may ci àddina la ndax comme yéen sa sal nee na su yàlla wërsëgalee nit jeexinte li xéewéer yi mën naa feeñ ci moom ca la muy lekk ca la muy naan ila axirihi ah waaw kon wala tansa nasibaka min ad-dunya moom bis bu nekk mu reeree ginnaaw nga ne ko da ngay yàq déedéet am na ko bul fàtte ne saxaaba yi ñoo gënoon dëdd àddina ñëpp daanaka liñ doon lekk yàpp moo moog li ñuy lekk ceeb ñun ñoo tolloo bul fàtte loolu de waaye wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yàlla mi rafetal ci yow nga nekkub liir banque say loxo juddu amoo dara sa bàyyi ngéntale ndax moo la ëppale nga màgg ba ëppale sa bàyyi yor ko ah rafetalal comme ni yàlla rafetalee jëm ci yow wala tabghi al fasada fi l ard gis nga Qaaruun daa ñàkkub cër xam nga dafa am yoo xamante ni wa man yurid llahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi min shay ku yàlla na ma fitnaal moom mënatoo fexe ba mu xinne maanaam liñ naan gaal ak alkandi ku ko xës a war li joow boo jëloon fafal naaw topp te ginnaaw doo ko def parce que doo ko mën a dëppati kon gis nga mi ngi nii loolu moo nekk ci aay ji moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni ko ah waa ji mu ne ko ndax da ngaa weddi tax xalaqaka min turabin summa min nutfa mu bind la ci toq ma nii summa sawaaka rajula ndax ku fàttali ko doomu aadama fi mu jaar ndeysaan toq ma nii ñeent fukki guddi mu nekkat suux lu ma deret quarante jours muy cent vingt jours mu nekk suuxab yàpp suñu borom yebal ab malaaka mu nekk ci sa biiru yaay doye di lool yàlla subhanahu wa taala def la fii qararin makiin nga nekk fa ab diir di lekk ci xéewalu yàlla yi di naan ci xéewalu yàlla yi subhanahu wa taala amoo dara xamoo société buy embauche du la jël parce que génn goo mën a goo xamagu la ah nga juddu ci melokaan wu doye di woowee nga xamante ne daanaka koo nettali ab juddam rek sawal mu bëgg a gedd foofu jóge fa gis nga kon ñun doomu aadama léeg-léeg di ko delloowaat ci cos cosaanam yow da nga gaaw a fàtte ay bërki dim li ngay yenn saak fii di jaay ci mbedd mi da nga kaa fàtte gis nga doomu aadama bokk na ci li koy gën a delloo si moom boppam rek waxuma sax ñu di ko ko wax waaye muy fàttaliku démbam gis nga fàttaliku sa démb lu am solo la démb bi nga nekkee fi nekk xale lu góor nekk waxambaane amoo dara amoo mënoo xamoo loolu nga di ko fàttali ko di ko gam-gam rek fi nga toll kooku day day mel ni maanaam bu bii naree ëppale bi nekkoon suuf day jug rek téyewaat ko su ko defee nit ki xamaat boppam li wolof yi naan xam sa bopp ci jaamu yàlla bokk kon mu ne ko summa min nutfatin mu bind la ci toq ma nii summa sawaaka mu daal lay melal nag rajulan nga nekk benn waaye comme nii nga mel ndeysaan xoolal yàlla subhana taala te loolu laalla bu ñu yeggee ci suuratul muminuun ci tàmbali ba dina gën a leer ci doomu aadama ni mu sosoo kéemtaani suñu borom yi ca nekk waaye mu daal di koy fàttali daal cosaanam moo tax benn waykatu arab day wax ni dafa am benn waay bu taxaw di fëgg dënn bi mën la diw mën la nàngam mën di wax ay wax yoo xam ne xam nga doomu aadama yi ndeysaan rek moo tax ñàkk xam sa bopp ñàkk xam sa bopp léeg-léeg day jural nit ki toskare ndax da ngay wax a wax a wax a wax ba mu yàgg rek benn waaye fàttali la loo xam ni moo tax gis nga nit bàkkoo yooyu moom wóorut sax wóorut bàkkoo yooyu wóorut ndax doomu aadama mën na koo bàkkoo paa yi dëkk ci dëkk beeg meer yi nga xam ne fekkee nañ lu bari fàttali la loo xam ni moo tax waajo moom fi nekkee nan ah man du ma topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man nangam man maa ko ëppale parce que maa ko ëpp ay doom maa ko ëpp nangam maa ko ëpp nangam gis nga ba suñu borom dikkee da ko waxal wax joo xam ne génn dëkk bi rek la bëgg wala tutaa kulla xallaafin mahin hammaadin mashaa'in bi namin mannaain lil xayri mu'tin utullin ba'da zalika zanim te lu waa dëkk bi xamul nag doomi njaalo la gis nga bi mu ko waxee loolu dafa xataraayu dem ci yaayam ñëw fekk yaay ji mooy coow foofu nangam waaye ji ne ko waaw sa baay da nekkul woon góor ma dem ca sàmm ba sàmm baa la kenn xam ko moo tax gis nga alquran gis nga booy dof dof lu ba yàlla soo tala xaawi sa sutura kenn ku ci nekk suñu borom mi ngi la xamal loo xam ne su ko waxoon damay da ngay tuxu laa da ngay tuxu jóge fi yépp maa nga dee sa xar suuf si dugg ci moo tax sutura lu baax la moo tax ñu bëgg ñuy suturaalante kon suñu borom subhanahu wa taala mu ni ah na waa ji mu ni ko ndax dangaa weddi ki nga xam ne xalaqaka min turaab summa min nutfatin summa sawaaka rajula moo la melal nga nekk góor nii xalaqaka fi ahsani taqwim nga nekk ku jub ndeysaan ñaari loxo yi sàll jëm suuf te gis nga loxo dañu mel nii ni ba tax nii ak a baax nii nii defal defal neen loxo du dul nii rek lu dul da nga toog te moo la moom li muy yolom yolom yolom yolom nii di wax du toog de waaye gis nga bis boo defoon loxo mu écarté wu wala mu def nii wala mu yéeg jëm ca kaw da nga toog wa sawarakum fa ahsana suwarakum yàlla daf leen a melal ba pare rafetal melal laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim waa ji ma doon wax sànq muy mbër mbër lu joo xam yàgg benn waaye mu ne ko man rek maa la xam rek boobu moom maa la mën a taggal say maam ñu ko bismillah mu ne ko koykat bi ni ko yow yaay waa jooju nga xamante nii ci ja tuurukaayu ndox nga jaar ñaari yoon doog a génn ca ku góor ka ak ku jigéen ka wax na ko dëgg wallahi wax na ko dëgg moo tax abu xayaan di wax ci tafsiram bi nii kayfa yatakabbaru man xaraja ala sabili lbawli marratayn ku jaar ci fu ndox di génnee tuurukaayu ndox ñaari yoon mu ni kii xaw ma nu muy rëy rëyloo kon mu ni ko akafarta billadi xalaqaka ndax dangaa weddi ki nga xam ne moo la bind bin turaabin ci suuf suma min nutfatin bind la ci toq ma nii summa sawaaka rajulan mu daal day def nga nekk melokaan wii te loolu lépp ay kéemaan la laakinna maanaam laakinna ah laakinna am na riwaaya bu wax riwaaya bu ñëw laakinna huwa allahu rabbi ama bi nag laakinna xaw a xëcc goo xam dafa mel da ngay xaw a taxaw ci kaw hamza bi laakinna bi maanaam laakin ana laakinna loolu lay tekki laakinna mu ne laakin ana man de moom ah huwa allahu rabbi kon yi ngay wax yii yëpp fi ne dara ma ci safut gis nga yii ngay wax da nga koy wax ay boromi alal ñu bew comme yow waaye man ngëm yàlla gi nekk sama xol moo tax li ngay wax man safuma lakin na ay lakin ana man day huwa kookee la nga xamante nii moom mooy sunu borom allahu mooy yàlla rabbi mooy sama borom te wala ushriku man day xalaatu ñënewu ma ko sax la ushriku duma bokkaale bi rabbi sama borom ahadan kenn man gëm na ni alal yàlla moo koy joxe gëm na ni tool bi yàlla moo ko ko may te it nag moom gëm na allaaxira te it gëm na ni yàlla mën na koo faagagal ci waxtu wu ne mu ne ko lakin na man loolu de yaa ko ñeme waaye man ñemewu ma ko lakin na huwa allahu rabbi man de yàlla mooy sama borom wala ushriku bi rabbi ahadan du ma bokkaale sama borom dara walawla is daxalta cay su fekkonte ni bi nga duggee jannataka ci sa tool bi qulta da ngaa wax ni ma sha allah ay waay waay lii moom mooy lu neex waay lu neex soobee suñu borom maanaam ma sha allah baat la bu ñuy wax li tabarruk ngir barkeellu moo tax rot na ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jàngale ni maanaam salafu saalex ñu wax ni képp koo xamante ni gis na lu ko yéem mu wax ma sha allah la quwata illa billah moo tax boo demoon ci al azkar bu imaamu nawawi rahimahullah indi na fa lu mel noonu surtout baatam laa quwata illa billah wala laa xawla wala quwata mooy yénti yàlla dañuy saxaaba abu musa al ashari xanaa doo ñëw ma digala loo xam ne am koom la ci koom-koom yi àjjana yi mu ne ko oxon kay mu ne ko laa xawla wala quwata illa billah ala ujalatin saria am na benn borom maire bu ma sa ñëw ci baqi ibni muxallid imam bu mag ci muhaddisuun yi fekk muy jàngale mu ne ko man de sama doom dafa àndoon ak jullit ñi dem ca xare ba ñëwut gars yi xamuñ fu mu nekk dañ koo jàpp xamuñu daa dee xamuñu te moom laa nekkaloon mooy moom laa am ci doom wax a wax a wax ay àggal baqi ibni muxallid ni ko ñaanal yàlla nga wàkkilu ci moom te foo toll deel wax laa xaw laa xawla wala quwata illa billah mu dëkkee ko di ko def ab diir bu yàgg jékki-jékki benn jour rek ñu seen waaju ñëw joo xam ne li mu ëndale ci xara ki naga ki ak jur moom moom sax faf moom da koo àttinut moom da koo àttinut ndekete ku nu jàppoon la bi maire bi di ñaan ñaan yooyu mu ngi am ay chaîne yu takkoon yu ñu takkoon ci tànk bi dafa jékki-jékki rek chaîne gi ne tipp na buur woolu ko ko yéen da ngeen di technique ay technique ngeen di jaay dóor lu ko dóor lu bañ naan tey lay gont dem àllaaxira ci ngoon ñu woo tëgg bi mu ñëw chaîné waat chaîné chaîné ko même pas une minute chaîne gi ni tépp dagg buur bu jaaxle day woo dagg yi mu woo dagg yi benn bu xaaba ni ko kii maa yaakaar ni daa bàyyi way jur wu jigéen bu koy ñaanal ci ginnaaw kon am na yoo xamante ni ñoom dañ ko xamoon xoolal ñun niñ ko doya dalee damaa ragal ni kii dafa ànd ak kii man way jur wu jigéen bu koy ñaanal te waxu loolu ku mu ko def xamut moom day wax rek supposons kii bàyyi ko mu dem kii dana fi indil ay jafe-jafe la buur bàyyi ko mu dem may koy xar may koy bëy may koy nangam mu andal yaayam farfa jaare nag neex la nekk buur kon gis nga zikri yi lu am solo koom-koom ci koom-koom yi àjjana yi te it nag la fa yàlla mooy la gën a rëy yal na yàlla may ñu ay xéwalam kon borom bi subhanahu wa taala mu ni waa ji mu ni ah walaw laa id daxalta jannataka boo duggoon sa tool xulta da nga wax maa sha allah mooy lii day mooy li soob yàlla subhanahu wa taala laa quwata kattan du am illa billah lu dul bàyyi ko ci yàlla kattan ak pexe mënta am saxaloo garab yi roose woo ko andi woo ndox mi moo moo suuf si lépp yàlla moo la moom sax yow in tarani ah da nga ma gis ni nga ma gisee nii de ana aqalla minka maalan wa waladan man de maa la gën a néew ay alal maa la gën a néew ay doom waaye lii de mooy sama pas-pas lii mooy li ma gëm moo tax borom xam-xam yi wax nit saa bu gisee lu ko yéen la wax ma sha allah quwata illa billah est ce que xam ngeen nit mën na gémmiñu sax boppam xam ngeen li nga tuddee gémmiñu gémmiñu sax la de loolu du olof de loolu sax na ci sunna gémmiñu est ce que xam ngeen luy gémmiñu gémmiñu mooy nit ki wax ci làmmañam mbir te waxul ma sha allah tooke bët dafa ànd ak tooke yonent yàlla bi nee na su amoon lenn lu jiitu dogalu yàlla ci gaawaay te amul dëkk bët lay doon làmmiñ dafa ànd ak tooke bët dafa ànd ak tooke nit mën naa wax benn baat gémmiñu sax doomam jëm jur lii bi ngay nàmpal sax mën nga kaa gémmiñu yow sa doom ji yow sa doom ji moom leer na di sa doom ji rafet yooyu bu ko nangu gémmiñ yi ànd ak tooke xamul yow sa doom ji moom kat moom am na poir kat yi ndeysaan mu daal di commencé feebar loolu day am de loolu du njabar du dara loolu noonu la yàlla bindee doomu aadama dafa am ñu am ay tooke benn saxaaba te qul ma adrakum man saxaaba ñan ñooy saxaaba yow Sahl ibn Hunayf benn waaye dafa ñëw daal di koy xool yii waaye sa waaye yow tey da ngaa naes de comme ni ko gars yi waxee Sahl nit ñi jaaxal jàngeen dëpp ci suuf saxaaba yi defeen dafa dee daw dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ñetti waaxu waaxu waaxu ñëw lu xew ñu ne ko diw de moo wax nangam nangam yent bi ne ko jàppal mu jàpp mu jël njàpp mi daal di ko koy xëpp rek waa ji daal di jóg ñu mu jóge muy nii ngeen def ba rey seen mbokk yi rek boo gisee lu yéem doo doo ko ñaanal tabarruk doo wax ma sha allah quwata illa billah moo tax Cheikh Saleh Sabhan di wax ci benn téeréem bi di wax ilaajul mahsuudi wal maayuun mu ni mboolem xeeti feebar buy am tey bët ak làmmiñ mën na kaa waral même bu dee cancer wala diabète wala hémorroïde wala lu mën a doon bu ko defee ñu faj faj faj faj du wér fekk garab gi koy faj gii la waaye la ca gannaaw ba tax loola am loolu xamaguñ ko loolu mooy dëkk bi loolu buñ ko fajee du wér loolu nag lu mat a xam la lu koy waral lu koy sabab lu cay tax a mucc ak ya ca aju kon macha allah quwata illa billah mu ne ko man day gis nga maa la gën a néew alal maa la gën a néew tamit ay doom mu ne ko fa asa rabbi maa ngi yaakaar ni sama borom di an yubtiyani mu may ma xayram min jannatik lu gën sa tool bi allahu akbar waaw yow yaa ngi ci kaw suuf kay aajo woon nga fi tool wala déet aajo woo ko de aajo woo nga ko kay waaw yàlla mayu la ko nga di ko ko nga di ko yaakaar yow lu tax loolu moo lay wax ni jullit ngëm yàllaam ci boppam yuminuuna bil gayb moom gëm na ni ajana kat la fa nekk moo gën a baax li nga xamante ni moom mooy seen tool yi kon mu ni ko man day maa ngi yaakaar ni borom bi subhanahu wa taala dana ma may lu gën lii nga xamante ni moom mooy sa tool bi an yutini xayran min jannatik maa ngi yaakaar yàlla may ma lu gën sa tool bi te wa yursila alayha wa yursila alayha nag tekkiwul ni xabaar la ak ñaan la moo tax al allaamatu saadi nasir saadi mu ne aaya ji mën nañ cee tegtaloo wane ni kon ki dew ñu waar ko waaruwut ñu xam ne alal ji da koy nar a yàqal nañ ko ko ñaanal mu ñàkk ko nañ ko ko ñaanal mu ñàkk ko kon lii ak ñaan la mu ne ko wa yursila alayha maa ngi ñaan yàlla sax mu yebal ci sa tool bi xusbaanan xusbaan ab taw wala bekkoor wala lu koy faagaagal min asamaai lu bàyyi ko ci asamaan fa tusbixa tool bi xëy nekk rek saidan ak ndànd foy foy zalaqan bu tàlli ñeret mel ni seetu saidan zalaqan tàlli ñeret mel ni seetu xam ngeen seetu moom ñax du fa sax moom seetu seetu moom ñax du fa sax saidan zalaqan ak saidan juruzan comme ni mu ñëwee ci saar bi ñaar yëpp maa ngi ñaan yàlla mu def loolu sa tool bi aw wala boob yusbixa mu xëy maa uha ndox mi gawran ni mentañ ci biir suuf si qul araytum in asbaxa maaukum gawran mooy ndox mi ñiis falan tastatia lahu talaba mooy doo ko mën a gas même boo yoree ay peel ak pikk falan tastatia lahu talaba mooy doo mën a gas ba yegg ca ndox ma ndekete ñaan gi nangu na ndekete ñaan gi nangu na moo tax ku gëm yàlla ak ñaanam dafa garaaw de dafa foor lool dafa foor lool rawatina ñaan goo xam ne mi ngi jëlee min samimi qalbin sadiqin baynahu wa bayna rabbi sa digganteeg sa borom mu sell nee na ndeysaan wa uxiita suñu borom daal di peet bi samarihi ci ndeysaan meññant ma suñu borom xëy xëy rek def ko nam defoon asxaabul jannat is aqsamu la yasrimunnaha musbihin ca suuratu nuun suñu bàyyi waxee ma naan ay jirim yeeg ay ñàkk ñeeg nangam nangam ñun daal fajar teel nañ dem góob tool bi rek ne jaar foofu dem marché ba jaayi ko suñu borom ne wala yastasuna ah du ngeen wax insha allah ba suba gars yi yeewu suba rek commencé di yeente ndànk par ndànk yeente yataxaafatuun mooy ñuy ndànkoonte di di di jugu jugu kaw kenn ñëw allah yadxulannaha al yawma aleykum miskin jaar leen fi bu ngeen miskin ñëw dañ dikkee ba ca tool ba fekk suñu borom yebal sawara su ñëw allaw tikku lakk tool ba mu jeex dem yoonam ñu ñëw ba ci biir tool bi ah déedéet fii du suñu tool bi fii ñëw ci timis lañ fi mujj fii du suñu tool bi benn waaye mu ne ahan kay suñu tool bi la waaye alam aqul lakum lawla tusabbihun yéen yéen a ko def démb waxoon naa leen mbir da nga da nga ciy sellal mbir da nga ciy boole yàlla ndax yàlla am na kàttan ci lu ne xamoon naa ni fii la ñuy mujj ngaa yi commencé def lu ñuy tuddee c'est trop tard subhaana rabbina inna kunna zalim ah c'est trop tard parce que bàyyi ba jaan ji dem nga jël yat wi dóor ci buum gi ci ci watit bi moom amul solo gis nga kon loolu moo dal waa ji sunu borom ne wa uxiita bi samari sunu borom teeg meññeenti ma fa asbaxa mu dal di mujj waa ji ndeysaan ñëw gis tool bi ndox mi niis mu wow koŋ gàncax gi dee ndeysaan allaw ci ko damu loos ndeysaan i allahu akbar est ce que yaakaar ngeen ni fi mu nekk nii ñi nga xam ne yàlla wërsëgal na leen alal waaye loolu sax defe naa loolu moom gëm ko léegi tey la war a gën a yomb ndax da ngay su ko yor ay magasin affaire yu xëy xëy rek tàkk jeex tàkk loolu nag tekkiwul ni saa bu amee mooy waa ji daa bon tamit bàyyi leen ci xel yu mel ne mbokk dama leen koy faral di wax maanaam ñi ay misaal kese la waaye tekkiwul ni mooy ku yàlla defal lii mooy dangaa safaan la déedéet yàlla mën na koo defal waa ji fekk daf koy kafaaral ay bàkkaaram pour mu tàbbi àjjana mën na ko koo defal fekk yàlla moo xam lan ca lam ndeysaan waa ji ñëw wa uxiita bi tamari suñu borom teeg meññanti mi fa asbaxa waa ji mujj yuqallibu kaffayhi dëppale ay loxoom jëf sayee boo ko jaaxle ni muy def sayee kii kay sayee yuqallibu kaffayhi mooy muy dëppale ay ñaari loxoom ndeysaan yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa xel maa ngay xalaat li mu dépensé woon ci tool bi ndeysaan raisin yi ndeysaan tàndarma yi ndeysaan ndox ma valeur suuf sax ñu ngi commencé di xalaat amaan na sax bu doon nitu jamono ji ñu ne bo- bor yee ko te nar a fekk ca banque ba nag tey bu paree tey mu dee ala ma anfaqa fiha lim ci dépensé ndeysaan wa hiya tool bi xaawiyatun mi ngi wéet ala urushiha ci yi nga xamante ni mooy ya fa nekkoon ci ay meññeent lu valeur yi maanaam valeur yi lu valeur yi la fa nekkoon yépp mi ngi wéet ndeysaan dara desu wa yaqulu mi ngi naan yaa laytani aka neexoon lam ushrik du ma bokkaale bi rabbi ci sama borom ahadan kenn da ngay bàyyi gis nga lii moo lay wan ni nag nit ñi danañ xam caay-caay ay tax duñu topp xam nga su fekkoon ni xamul li muy njëkk wax mooy jàngal ma sa affaire bi gaaw ma comprendre kon ndax defe naa loolu mooy li baax waaye automatiquement rek waa ji ba mu nekkoon bul bokkaale yàlla nanguwul waaye bi mbir mii amee balaa ñu leen ko waroo woon a bokkaale moo tax gis nga dinaay waral dox di bokk na ci fiqub alquran am na ñoo xamante ni jëriñu yedd yedd yu xóot ndax yàlla yeddal na la ba noppi yow gis nga nit léegi dina toll ci ay situation yoo xam ni jërul yedd benn waaye ñëw na ci man ni ma daa bëgg soxna diw lay jël ma ni ko ah diw moom di wax dëgg yàlla bu dee li ñu sharia jàngal sañ nañ koo def ba dalul sama xel ndax nangam ak nangam am naa ciy def comme xadis ak Muawiya ba mu koy sa sanam kii nangam la kii nangam la kon borom xam-xam ne loolu dugg ci buntu jël gis nga ñu toroxal ko ca toroxal boo xam ni ah fa mujj daanaka ëpp na sax a nekk li ndax musiba ya ca nekk yoon sax am ci wàll ida ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yu gudd la ba pare dama ne kii jëru di yett dañ ko góor kii jëru di yett ndax lu tax jëru di yedd mooy yàlla yeddal nañ ko ba noppi lim sax danaa ko da nga dëgër bopp da nga lii la jëru ko noppi rek yow yàlla yeddal na la ko dafa loo xamante ni da ngay gën a man mën na tax sax loolu mën na tax sax mu gën a xir ñu ñu wala mu fipp yàlla yeddal na la ba noppi kon gis nga waa ji gën ngay toppaat fii naa ko waxoon naa la ko da ngaa lii déedéet moom muy reconnaître boppam wala ushriku du ma bokkaale bi rabbi ahadan ci sama borom yàlla subhanahu wa taala sunu borom subhanahu wa taala mu ni laysaan walam ushrik waa ji mu ne yaa layta ni ak a neexoon lam ushrik du ma bokkaale bi rabbi ahadan kon nekkee bokkaale dafay yàq alal bokkaale day yàq alal xoolal waa ji fi mu mujjee alalam yépp ndeysaan saaw na naax saay moo tax gis nga bu la yàlla wërsëgalee alal xamal loo xam ne bis boo ñàkkee alal di nga ko mën a dund ak a am sol waaye nit ki tàmm na ndeysaan léeg-léeg am alal te alal man day delloo nit ki ba day def ndu ñàkkati am na waajur ma nit ci li joo xam ne li mu amoon ci alal man xam nga li ñu tudd di olof bi tuddee jéggi dayo daa jéggi dayo suñu borom xëy ñàkkal ko ba muy yalwaan lii ki ma ko nit li mu ne man xam naa waajur mu ne ñàkkal ko ba muy yalwaan di yalwaan subhaana rabbil ala gis koo xamante mbo ki ma ki ma nit li xista bi nee na waa ji yeggoon na ci dag yi nekk bu du du góor sax waaye xam nga suq yi bu bu mu saara bëgg a noppalu léegi bu toogee ci pilier day jël tànk bi teg ko ci kaw kenn mbaa boo toogee mu yëkkat tànk bi jox ko sa kaw mbagg bi xam nga bew daal bew bew daal daa baaxut rek waaye gis nga ndeysaan fi mu mujjee moo tax yàlla waxut kenn leen yàlla subhanahu wa taala xamul xamul fu affaire yi mujj mën ngaa xëy xëy rek nga ñaar moo tax lu ne war nga koo jéem a tamal sa bopp tamal sa bopp ak tumuraanki tamal sa bopp léeg-léeg xiif tamal sa bopp léeg-léeg ñàkk parce que mën ngaa xëy xëy rek ndeysaan yàlla jël lim la joxoon kon suñu borom mu ni ah waa ji mi ngi réccu ne yaa la aka neexoon lam ushrik du ma bokkaale bi rabbi ahadan ci sama borom dara walam takun lahu nekkul di ko ñeel fi'atun am mbooloo moo xam ni yansuruunahu ñoo koy dimbali min dunillahi walis yàlla keram mooy xaaruun rek lay sa baj-baj loo ko fuuy fuuy loo ko ñàkk bu yar ba suñu borom xëy benn jour rek digal suuf ni ko yooyu suuf yow sama jaam nga xaaruuna sama jaam la jaam bii laa bëgg mu wannal ma jaam bee rek suuf ñu nga yeet kudd furset yaag pañe yaag daa xam kaw maag doom yaag jabar yaag dag yaag yan doon yar ca kër yi xaj yaag yëpp lay sàll di gëm-gëli rek dem suuf lii lii waa dëkk bi dañ koo gis waa dëkk bi gis suuf si ñu ngaa yeeg firi ko tax ci biir léegi nag am na ñaari nit ñee ñu ngi doon wax naan yaa lay karanaa nit la ma uutiya qaaruun ñun yëpp ma bëgg moo tax gis nga waay waay waay teegaan nañ li la yàlla bàyyi gis nga léegi doomu aadama dafa doyat ndeysaan day man dama bëgg mel ni diw ndax nangamam ji ndax kiyam ji dafa am alal ji yow ku la wax ni la yàlla defal noonu dana baax ci yow tey nga mel ni la yàlla mel noonu rek noonu baax na de ak a baax ñu la yàlla def ak a baax léegi xoolal ki doon ñaan yàlla na mel ni qaaruun sunu benn sunu benn parent de l'élève daf maa nekk li muy dafa dem dund ci hôpital Fann benn waaye wàcc indaale oto boo xam ni oto bu kéntaan la ci rafet ndeysaan gars yi am ñu naan ci di ko xool rek waa ji mu ñëw mu ne yéen yéen xanaa da ngeen a bëgg am lu mel nii xam naa dafa nekk bu ñu reelu noonu da ngeen a bëgg oto bu mel nii mu ne waaw waaw benn waaye ni ko ah waaw li kay ñëpp ko bëgg mu ni xam ngeen man ni ko lan laay wut si fii ñu ni mu ni mu ni saw si ñu damay saw si dafa am feebar boo xamante ni pour mu saw faw ñu defal koy appareil pour mu saw moom moom oto bi lii ki ma ko nit li neen ci kanamam mu ne gis nga melal ni la yàlla bàyyi rek gis nga nii la suñu borom def nga xam ni sa waay bu sa kawar gi sa xiisa pour nga wat ko jënd bu lañ set dalay jafe bàyyi bàyyi noonu rek bàyyi noonu rek sa karaxi jiimaa yi dagg ngay dabb daaxe bàyyi noonu rek noonu baax na de yàlla alaa yaalamu man xalaqa wa huwa allatifu alxabir ku ñeewant la te moo la gën a ñeewant ku xam la moo tax mu def la nii moo tax borom bi subhanahu wa taala mu nii walam takun lahu nekkul ñeel fiatun mbooloo moo xam ne yansurunahu min dunillah dañ koy dimbali wala si yàlla gis nga xaarum tamit kadalika ndeysaan affaire bi gël gëliy dem gël gëliy dem am na riwaay yi wax ni ba yowmal qiyaam sax ma ngay gël gëliy dem am na benn xadis yonent yàlla mu ne benn waaye daa sol yërëm di direeku di rëy rëylu suñu borom ni suuf wannal ma ko yonent yàlla mu ne fa huwa yatajaljalu fi l ard ila yowm al qiyaama ma ngay këram këram yi dem rek eggagut ba àllaaxira ku koy dimbali kenn du ko dimbali walam takun lahu fi'atun yansuruna min dunillah suñu borom saa bu andee mbiram ku lay dimbali min dunillah walis yàlla wa ma kaana nekkul muntasira nekk ku ñuy dimbali suñu borom mu ni hunaalika foofale nag alwalaayatu fa la ñuy xamee ni péete nag lillahi ñaan la yàlla kese alxaq muy dëgg alwalaaya tekkee nañ ko ñaari tekki mooy hunaalika alwalaayatu lillah mooy alaxira buñ fa yeggee péete moom yàlla rekk ca baax wala boog hunaalika foofee waa jii nga xam ni fa la ko musiba jii dalee fa la ñuy xamee ndekete alwalaayatu féete moom lillahi rekk ma ta doy inna waliya allahu alladi nazzala alkitab wa huwa yatawalla saalihin yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu kon huwa sunu borom xayrun moo gën sawaaban ab yool bu muy faye wa xayrun moo gën uqban ak mujj ndeysaan mën ngaa bañ a baax la fii xoolal saad ibni muaz wala muaz ibni jabal saxaaba yu baax yi ku mel ni saad ibni muaz xam ni bari woon alal ba parfum bi muy laal par suba du bokk bi muy laal par ngoon yaayam dummóoyu ko ndax lim topp Muhammad mu dem ba yaram bi di xub di xolleeku comme xubitu jaan ndax ñàkk xam ngeen ni ku amoon alal xëy ñàkk misère yi ngay misère day feeñ ci sa yaram parce que noos nga tàmmoon waaye kii ndax li muy def dogalu suñu boroom la boo xamante ni mëneesu ci dara ahan kay mën na ci dara ndax bu demoon déggal yaayam léegi dellu mel na meloon waaye nag dafa xam ni maa inda allahi xayrun wa abqa xoolal kii ni bari woon alal du móoyu alal ja li muy faatu ñu koy suul morso perkaal bu ñu sàngee ci kaw ba ci suuf sax amuñu ko ñu suul ko noonu day saan yonent yàlla bu ñu musuwaar ya muy jëfandikoo ca ajana ja ki li nekk si yar moo gën àddina ak li ci biiram ndax da ngay bàyyi dara nag da ngay bàyyi dara nag bay suñu borom xam ni lii bàyyi woo ko bàyyi ñàkk pexe li may wax gars yi léeg-léeg nga dégg damay dëddu ak dëdd fekk dëddu àddina àddina la dëdd loolu dañ koy bàyyi xel àddina ki ko dëdd mooy ki ko jekku moom ko ba pare bàyyi ko ki àdduna dëdd mooy ki nga xam ne li tax mu mel ni mu mel mooy daa amul am na yoo xamante ni ay wax la rek waaye bis bu la affaire yi caressé ni suñu benn saytu doon wax muy gars yu bëri bëri ay suma amee al damay dimbale daawa beeg damay nangam mais loolu ay wax la rek am na ci ñoo xam bu ñu amee rek mel neneen te wax na dëgg de wax na dëgg moo tax suñu borom subhanahu wa taala mu ni huwa moom de xayrun moo gën sawaban ab yool wa xayrun oqban moo gën ci mit la nga xam mooy ak mujjantal defe naa mën nañ taxaw noonu ndax waxtu yi jeex na ñu ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiix àddina gi alaxira ñu ngi ñaan yàlla mu wërsëgal ñu lew loo xam ne loola danañ ci mën a sàmmee suñu ngor ak suñu diine waaye yàlla bu ñu yàlla jox loo xam daf ñuy deewloo wala mu ñuy tàbballoo ci fa nga xamante ni mooy mbugalam ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu istiqaama xatta almamat wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain